<laughs> asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal ma la cuun biir borom kontaan naa ci abonné kontaan naa ci seen bi liiru jaan laay woo liiru jaan ne ko damaa nekk géej waaye bàyyi faa leen ma dàq ma ñëw fi bëgg laa ko sa liiru jaan bi comme ni ma ko waxee rek yéen ñi nga xamante ne ngay ay produit leen ko muy meew wala produit bu mu mën doon mën ngeen maa woo ci sama numéro incha allah ñu ko ñu dox ci publicité jaay ko jaan kontaan naa ci abonné xeetu wàllu yu soo bëggee dalal bi ngay waaj a dégg bësal touche étoile ak un juróom-ñaar yi fukki dërëm rek lay dikkee weer wu nekk. salaamaaleykum. allo. maaleykum salaam. Lirou Diane maa ngi ziar de. maa ngi lay delloo ziar. yaa ngi si jàmm baax. maa ngi sant yàlla bu baax. Euh, man la Cheikh foo dëkkee ci géej waay. yàlla. foo dëkkee ci géej waay man la Cheikh. ak Cheikh. waa man de Touba la dëkk mais xam nga euh, ay oto laay jaay Touba. waaw. waaw léegi nag parking bi ma yoroon. bi ma doon jaayee dafa am ay garab yu nekkoon Baye Fall dañ koo dagg. ay lan. Euh, garab mi maa yu fi nekkoon fa laa doon taxawal sama oto Baye Fall dagg ko. waaw bi ñu ko daggee dama cee def vidéo nag xaw leen a dépassé. damaa def benn vidéo. waaw doon ko man maa booy boobu takk masque bi rek te nekk ci TikTok te gars di ko partagé. léegi nag gars yi dañ may wër nii damaa daw ñëw géej waaye bëgg fu ma waaw léegi nag léegi soo bëggee foo làqu nag foo bëgg a làqu yow. laa bëgg nga xam fu mu nekk ma ñëw fa. nga xam fu mu nekk ma ñëw fa. waaw yow ça va yow dëgër nga firnde yow man nay Baye Fall nga tooñ Baye Fall yi Baye Fall di la wër nga naan sama kër ngay làqam. liiru bëgg du ma ñëwee sa kër yow nga filma la. nga daan ne waaw filma kan. man yow yaay filma nga ne yow lépp lu ma def rek yaa ma ko def law. nga ne gars yi liñ nekk. Eh, eh, eh, dama lay wax booy ma loo def maa la ko loo def maa def la maa la ko def loo. liiru yow eh, a li ma làq déedéet man li ma wax dafa ëpp Issa Issa ñu ngi may wër te li ma mën a dimbali mooy. waay su la nga wër te foo làq oto ji man sama kër mënoo faa làq sama. te foo dëkk Géejawaay. fu ma dëkk ah man tax taximan bi ma yéeg taximan bi ma yéeg sax neen xam na sa kër. Eh, xoolal dimbali ma ne benn taximan xam sama kër koo day tuur dama la wax moom fonto de nga ma taximan xam sa kër booy moom fonto de dañ la wax eh, sama kër soo ko ñëwee ay kuuru Baye Fall moo la fay jël leer naa la xamal boo ko ñëwee ay kuuru Baye Fall moo la fay jël xaaral ma dem kër Balla Gaye non sëñ bi baax na liiru man damaa yaakaar xol bu rafet nga yore xaaral ma dem kër Balla Gaye doo ko waay waay amul xol bu rafet nit nga tooñ ba may laqul man naa tooñ naa fat koy tooñ man naa fat koy tooñ Balla Gaye fu mu dëkkee ci géej waay xaw ma waaw yow saa yi sëñ bi baax na jàmm xewal bu ma tooñ waaw comme comme boo dëkk